assalamualaikum wa monsieur le président digital ngi lay nuyu di jiital ci nuyoo bi ak bi Cheikh di ko ñaanal sama borom mu yàgg fi di ko ñaanal kilifa diini ci réew mi yëpp di nuyu monsieur le ministre enseignement supérieur di nuyu monsieur le ministre Moustapha Ba ak Samba Sy bu ñu nee enseignement supérieur Nak xam naa bu ma fi taxawee di wax mën naa jaaxal ñu bëri ndax njàng mu su man gëm ko mais Cheikh dafa am initiative bu am solo mooy taxawal université Touba université boo xamante ni ña fay jànge duñ ay burkinabé duñ ay guinéen duñ ay malien ay sénégalais lañ ñu amee initiative bi du ma ne état Sénégal jàppale na ko mais président Macky Sall def na ci xaalisam comme ni ci taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp def xaalisam mooy yëkkati addiyaam joxe mais liñ doon gën a sàkk ci moom état Sénégal ñëw ak appui bu am doole ci université yi boobu ndax buñ ne université dafa am lu mu laajoo du ay tabax ak i rek ministre enseignement supérieur bi fi da nga remplacé ko muy Cheikh Omar Anne digg woon na ne année bu jot dina subventionné université Touba 500 millions ñaari at yi fi toog yëpp subventionné université benn dërëm loolu ñuy laaj ba xam yow looy continuer la digg yi wala di nga ko def doo ko def. beneen bi ci toppaat tamit université bi soxla na ay jàngalekat jàngalekat yoo xam dañ koy recrité di leen fay sa weer may laaj loolu état Sénégal bi yan responsabilité jël pour subventionné université boobu. ndax université bu soxla ndimbal la bu soxla jàppal la ndax dafay jàng ay sénégalais ndax ci tabax ñëpp xam na ne bi ñu koy tabax état Sénégal waroon naa jàpp ci exonération bi comme ni nga ko jàpp ci yeneen tabax yi nga xamante ni lu xeetu public la biñ ci interpellé daaw ministre des finances Moustapha Ba ne woon na def nañ ko ba ne subventionné nañ université bi ci exonération lu mat 16 milliards bi mu xoolaatee ñëwaat na ne dafa juumoon loolu du woon université bi mais ci Masaalikul Jinaan bi la woon kon may wax université bu toll noonu ñu koy tabax doon na doon gàcce lool président de la république war leen na subventionné kon ñu xaar université Touba ngeen gën cee dugal seen loxo te xam ne ña fay jànge ay sénégalais lañ Cheikh Mamadou Mountakha bi mu amee projet bi li waroon état Sénégal mooy mu nangu projet bi ci loxoom ne lii moo koy tabaxal boppam ndax Touba soxla na université kon jàpp naa ne sëñ Moustapha Ba université boobu soxla nañ ngeen dugal ci seen loxo bu baax a baax a baax ndax projet bi bu ko Cheikh Mamadou Mountakha tabax tabaxu ko ngir waa Touba ndax université dafay jànge Touba ñoo ci gën a néewle bu formé ay nit Sénégal yëpp la ko formel kon loolu jàpp naa ne comme ni ma ko waxoon démb bàyyi leen Touba gi ngeen xool dëkk si tere lycée Touba dimension ëpp na loolu Touba dernier recensement yi ngeen génne da ngeen ne mooy premier département ci Sénégal boo xam ne moo ëpp ay nit kon lépp loo leen fay def ci biir Sénégal jël leen Touba comme considération boobu taa ngeen jàppe ko dëkk diine boo xamante ne boo leen defee ci dëkk diine cinquante ñëw def Touba cinquante loolu ñu ci gën a insisté kon ministre de enseignement supérieur di ko defee université Sine Saloum di ko defee ci yenn université yi université Touba ak ngeen gën ci dugal seen loxo wasalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ ngeen